wacc nag wane seenuk mer boole nag ay rongoñ fi nekk nii dal ci kaw naar yi nga xam ne ña nga ca Guet yàq seen bagage ya nekkoon yëpp foofulee ca Guet Ndar loolu lañ yéene kaay bi Le Quotidien wax Vox Populi na manifestation yu tàng jëpp moomoon démb ca gendaar ndax nag waa Guet Ndar mene wane nañ seenuk mer lool ginnaaw bu ñu boomee fàllu jaxate benn nappkat boo xam ne fukki ak juróom-ñeent dong la amoon te ñu ko def di jëf ju ñaaw ginnaaw di garde côte mauritanien yi ñoom nag ñoo tax waa Guet Ndar mer ba tax force de l'ordre yi sax ñoo sotti ci mbir mi ndox mu sedd ndax ñoo intervenir lu ko doon rek mbir mi gën a wulee ñaay Vox Populi ne Saint-Louis tàngoon na jëpp démb Macky Sall tamit mer lool Aziz di président bu Mauritanie di jéggalu yéenekaay bii di laas na Macky ak Aziz bu Mauritanie nee neen mbir mi dinañ ko jël ba xool nuñ koy regle ci àllarba gi waa Mauritanie dinañ yónnee ndaw fii ci Ndakaaru ngir ñu waxtaane ko lu ci mën a amit ba des daal Macky sàll mer na lool yëral yéenekaay bi Les Échos nee na lii mënta nekk di tiire ci ay nit mel ni kuy tiire ci ay mbir mi day leer nañ ci biir yéenekaay bii Le Quotidien nee na situation bi mënta continuer ci diggante Sénégal ak Mauritanie ci biir yéenekaay bi di L'Observateur procurateur ministre de l'intérieur ne patrouilleur bu armée bi moo faussé ne fi mu ne ngi yor kaaraange nappkat Guet Ndar yi nekk ci géej gi jàkkaarloo nag ak garde côte mauritanien yi Vox Populi ne dafa mel dafa tàmbali ndax Sénégal jël na navire de guerre yóbbu ko ca frontière bi ngir aar nappkat ya nekk foofu Aly Ngouille Ndiaye ci biir yéenekaay bi Les Échos ne ba mbir mi xewee waa Mauritanie dañoo bëggoon taxañ mbir mi ne dañuy yónnee koor bi mën na leen mukk du fi amee Omar Gueye ci biir yéen kaay bi Les ne mbir mi kay faaw mu leer waaye nag service secret français yi tiit nañu lool Dakar Time moo ñu ko wax ndax nag Emmanuel Macron dafa war a dem ca Ndar situation bi fa xew nag jamono yi tax nañu tiit mën a amit ba dees PDS fi mu nekk nii nee na bu Emmanuel Macron du ñëw di leen organiser seen marche waaye ñoom seen biir sax ña ngay tamante dem yéene bii nga xam ne moo di Vox Populi na dem comité directeur ba ku nekk yaa ngi xool sa morom ne est-ce que nekkoo di collaborer ak régime Macky Sall rawatina kii nga xam ne moo di Umar Sarr ndax dafa lank bañ na Braya kenn du ko dàq ci biir parti bi ñu ne Umar Sarr Macky Sall lay liggéey procès xalifa Sall yéenekaay bi di Le Quotidien na président bu tribunal dafa dàq maître El Hadj Diouf ne ko fi mu nekk nii yow nekkutoo partie civile mairie bi da ngay layool ki nga xam ne moo di Khalifa Sall ba tax Barthélemy Dias mer lool ci biir yéenekaay bi di laas nee na doyen des juges d'instruction ak procureur ñoom ñëpp ay comploteur lañ. te procureur de la république Serigne ba Gueye nee na du dell ginnaaw ci biir yéenekaay bi di Vox Populi nee na moo ko waxoon moo ko waxaat te dina ko waxaat Khalifa Sall jël na koppar yi libération ne dina àtte tamit mbiru xalifa Sall fële si Abuja di cour bu CEDEAO Clédor Ciré Ly dem na fa fas yéene jàkkaarloog Mafal Fall ak maître Ousmane Diagne mbiru Wari ak Millicom yéenekaay bi libération ne juge bi raxasu na ci ba seet te nag fi mu nekk nii mbir yi nuñ ko nar a yóbbu ci cour arbitrale bu Paris libération ne procédure bu gudd la nar a doon nag secteur santé yëngu lool ñii di médecins yi amal ñetti jours grève yéenekaay bi laas wax ñu ko combat Modou Lo Lac de Guiers di wéy ba tey jii ci biir yéenekaay yi ñu tàmbali ci Lac de ci biir yéenekaay bi Le Quotidien nee na bët yi daa amoon suuf moo tax bëriwul nee na moom ci biir yéen kaay bi Les dañoo faralaate lool ci biir làmb ji te looloo ko nar a yàq ci biir yéen kaay bii di l'observateur mu ne moom xam na ne mooy mbër bu gën a bañ ci làmb ji ci biir yéen kaay bi Les nee na arbitre yi dañ ko doon harcelé jéemé yi jaarale ko ci bunt boo xam ne kii di Modou Lo dafa defoon ay xarfa foofa nee na ginnaaw mbay Guèye ak Birahim Ndiaye ñi ngi koy critiquer rek nañ koppar yi nar a dagg ci moom nan nañ ko jox ñun ñu dimbalee leen ko Modou Lo moom ba tey jii ma ngay sar xole ci ngañaay la mu am ci biir yeneen kaay bi l'observateur nee na Yékini nag moo ko wax clé bi mu war a utiliser pour gagner combat bii Modou loo ne Lac de Guiers dafa mel ni ko ragaloon ci biir yéen kaay bi di Vox Populi yokkaat ci leneen nee na ponkol mu toll ni Lac de Guiers bu jëlul benn initiative lamb munta am te nag abaana gasi dootul bërëg Lac de Guiers ñu ne ko waa sa ëllëg ci biir làmb ji nag mu ne mën naa bërëg Bombardier wala tafaatim ba ci Ama Baldé waaye nag day fekk Ama Baldé toll ci niveau loolu la leeral ci biir yéen kaay bi di Vox Populi jërë ngeen ngeen si seen